asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience euh, xam naa ne yéen a ngi ci waar wi yéen a ngi ci xeex bi te am naa yaakaar ne yéen a ngi jëf la ngeen war a jëf nun suñ devoir rek mooy di leen dolli am xel di leen dolli am xel ndax équipe bu ne dafa am coach te coach yooyu dañoo am solo ci équipe wépp boo xam ne rek que ça soit basket wala football ba ci soldaar yi dañu am ñu leen di coach coach nag xam-xam la boo xam ne euh, bu yàlla def ci doomu aadama yi la maanaam nga am ak yëg akuk man xam am expérience te it loolu nga xam ne moo yëkkati ñëpp euh, sur le plan physique nga maîtriser ko sur le plan moral maanaam dafa benn aspect euh, philosophique bu ci nekk am aspect sociologique bu ci nekk am aspect bépp psychologique bu ci ne ba tax na toog ba mu yàgg nga xool ci sa morom nam defee woon nga defee noona nit yàgg na ci am ndam dama leen xam léegi ne leen li xew Mali gisoon ngeen ko ak imaam Dicko imaam Dicko moom bu ñu waxantee dëgg woote na ak suñ kilifa yi suñ kilifa yi di nii woote ak imaam Dicko imaam Dicko ba mu tàmbalee la imaam yëpp yëpp wër Mali jox ko loxo ànd ak moom ubbi nag kaamil bi kenn ku ci nekk. di xool na nga xam ne moom la ko yàlla digale nga xalaatee ko noonu jottalee ko xalaat yi noonu bon mu doon combat boo xam ne tey maliens yi rëccuwuñ ko gis ngeen Mali tey moom lañ seen bopp malien yi nee réew mi fi kenn làkkati français langue nationale bi bambara la seen làkk woowu seen làkk national mooy làkk wi nga xam ne moom leen jël muy làkk wi nga xam ne moom lañ gouverner réew mi lu mel noonu lu mel noonu aw fite koy def lu mel noonu am joma koy def lu mel noonu il faut nga doon góor dëgg dëgg dëgg dëgg door ko man il faut sa population yeewu maanaam askan woo xam ne am xel la ñuy demee buñ yàlla may lu mel noonu oh, defe naa ne war nañoo mën a jóg ànd jubbanti réew mi nit ñi def Ousmane Sonko kenn ko xam ne jaaduwul kenn ko xam ne jaaduwul suñu sëriñ si vraiment vraiment haute trahison lañ def ils ont trahi le peuple sénégalais euh, te buñ bokkee waxante dëgg looloo fi ne bu fi kenn wax nag affaire ke affaire sama baay ak sama maam ak sama sëriñ ak affaire fanatisme yooyu dafa war a dakk dafa war a dakk te koy def am njommi ci dëkk bi ak koo mën a doon ku ne nu xamal ko xale yi xale yi xamuñu histoire du Sénégal moo tax mënuñoo xeex mënuñoo xeex ban fa war a jëlee Macky Sall yàgg na jekk woon ngeen ko fi de ndax jekk woon ngeen ko waaye ñàkk a mën a xeex ak Ousmane aussi erreur bi ci moom la dépendre parce que bi ñëpp lànkee bi sëñ Muntaxa waxee Ousmane Dane nañ ko suturaal kan nangu ku baax la bëgg na réew mi Ousmane dafa nekk di wax ban ñëpp ne ko topp nañ si ginnaaw yaa ngoog sëñ Muntaxa ngoog waaw ñu bind fukki poñ jox sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa ne fukki poñ yi dana ko waxtaan discuter ko ak Macky Sall booba ba ndëgee ni fukki poñ yeen ko joxoon am na ñu ne Macky Sall ba mu jotee kër doo ko xotti sànni Macky la nga xam ne moom la wax ginnaaw ba nga xamee ne jekkoon nañ ko te sëñ Mountakha tàqar ci ko ci buum yi Macky dafa ne danaa delsi te danaa fayu danaa delsi te danaa fayu ku naan danaa fayu ku naan danaan fayu yow du yàgg mukk ba nga mayee benn poñ benn poñ kon erreur bi am na erreur humaine dañ ko ko tudde waaye li jaadu woon li jaadu woon Ousmane euh, ba ñëpp lànkee Ousmane da ngaa a lànk ndax boo lankoon tey xeex bi du am boo lankoon ñi fi dee ginnaaw bi du am boo lànkoon Macky Sall ci boppam du woote assemblée nationale di am lu mu fay wax lu mu dul wax boo d'accordoon boo lankoon lankoon assistance kii du am euh, dialogue national du am mais sag baax sag lewet ak sa njulite ak gëm sa moromum jullit nga am yaakaar ne ak yaqin bu wér ne sëñ Muntaxa mi daal am naa yaakaar ne bu waxee ak doomam Macky Sall Macky dana ko déglu waaw loola mooy la ko rey euh, ba Ousmane wañu ko bàyyi fi ñëpp dem ànd moom waaye tey gis na le gis na lu wér ana Ousmane mi ngi ci kaso bi ana parti Pastef ñu ngi koy tas ndax dégg ngeen genn kilifa ak diine gu artu benn xalifa bu artu re ndax gis ngeen ko kon loolu lépp am njàng la am njàng moo xam ne dañ ko jàng ci suñu taarix taarix bi nag day tax yow nga xam foo jëm ndax taarix day jubbanti doomu aadama waaw manifestation yi gis ngeen ko toujours la France toujours la France fi Burkina Faso Mali Niger Guinée askan yëpp a dajaloo ñëpp dajaloo ne doy leen sëkk ci France ndax kenn ku ne xam France amuluñ njëriñ am nañ junni junni at ak France te tey amu leen lu ngeen añee français yi ñu leen bayloo gerte bu seeni maam di bëgg a dee amul lu ngeen ca jële bu ngeen duggee Casamance bu ngeen duggee Sine Saalum ak Kajoor 1960 ak léegi ñaata toni gerte lañ bay kenn xamul lu mu toll te tey boo duggoon Kajoor Kajoor mënoo faag si benn néeg benn néeg rek boo xam ne ca mbay moom mooma la génn ñëpp daw nañ topp sañ-sañ ña nga daw nañ ña waaw ñi tasaaroo xale yu ndaw yi ne ci mbedd mi ambulant ñi ci des jël géej gi ñii gàddaay dem seen yoon kon yu mel ni ba amee ci am réew xale yi jóg ànd ak Ousmane Sonko bëgg koo dakkal bëgg koo faj defoon naa ne kilifa diine gu ko dégg gu ne da nga ne yaaram kala da nga ci jéem a jàpp da nga ci indi say xalaat da nga ci indi say ndig waaye maa leen ameel bor moom dégg nañ ko waaye bor ba day yaakaaruñ koo fayu yaakaaruñ koo fayu buñ bokkee wax dëgg kan waxante dëgg xale bii Ibrahima Traoré jëf ji nga xam ne jëf na ko ak déggoo gi mu dégg ak Ousmane Sonko loolu daal Ousmane Sonko déggoo bi cala parce que pour ñoom xale bi dafa gëm Ousmane Sonko te lépp loo xam ne mu ngi ko yëngal dana ca tàggu Ousmane Sonko lii mu wax Moscou lii mu wax Soviet Union lii mu wax Soviet Union nga am Afrique yëpp a jóg taxaw pour français yi Ousmane Sonko bokk na ci ñu ko digal. moo tax il fallait Ousmane ñu téye ko ba événement bi amee laa leen ko wax ba événement bi amee laa leen koo wax parce que le Niger ci semaine bi dañoo def coup d'état gis ngeen ko waa Guinée fippu Mali moom dem na yoonam Sénégal moo ci des ginnaaw ba Niger fippoo foo dem ñu ngi lakk drapeau France foo dem rek ñu ngi koy lakk tey bu fekkee ne Sénégal dañoo bëgg a jóg fekki sous région bi pour créer benn état fédéral et révolutionnaire kooku France du ko nangu moo tax joxe ndigal ne gaaw leen jàpp Ousmane Sonko te tas Pastef tas googu nag tur yomb na tas ko yomb na waaye mais fàttali Macky Sall ne réew mi askan wee ko moom réew mi la raison revient au peuple dama ne dëgg ak lu muul teg réew mi ak nu format bi mel askan wi lay neex askan wi mooy décider ba ci constitution bi askan wi mooy décider kon Macky Sall amul ci lenn loo xam ne war na ko man balaa damay dàq keeg damay tas keeg damay def lii waaw fii maliens yi toll fii maliens yi toll Sénégal yi bu leen neexee ngeen dabe seen soldats yi nekk seen soldats yi booy ngeen nangu uniforme yi solo leen ay sipp parce que duñ góor parce que armée française képp lañ ragal armée France bii seen i képp lañ ragal ak généraux yi ci kaw nga xam ne ñi leen di corrompre ay oto lépp lañ leen jox leen tabaxal yi kër lu ne dañ ñu leen ko defal surtout Marème Faye Sall mi diviser gendarmerie bi diviser armée bi ak police bi kenn ku ci nekk xam na ne xam na ne ay nervi ci am réew baaxul waaw euh, ay mercenaires aussi c'est la même chose mooy ay nervi le terrorisme baat boobu dañ ko fee jëlee parce que les africains ragalutuñ terroriste pour ñoom terroriste ay fen la gëmuñu terrorisme moo tax ñu indi les forces occultes indi lu mel ne ay nervi indi waat indi waat mercenaire muy loo xam ne du yëfi dara moo tax yéen Sénégal ni ngeen jóg jóg leen def leen ne Pakistan def leen ne Pakistan daf leen ne Bangladesh Bangladesh gis ngeen ko ca palais ba lañ dugg daa ji dugg ci palais bi Sénégal war ngeen mu dugg ci palais bi te ma di leen fàttali ne tant que tant que dajju leen prison yi génne prisonniers yi tant que defu leen ko ah tant que tribunal de Dakar ak tribunaux yi nekk Sénégal taalu leen ko ba mu jeex parce que problème bu nu am tribunaux yi la taal leen lépp ginnaaw tribunal yi aussi war ngeen xam ne assemblée nationale fa la naafiqi dajaloo fa la naafiqi dajaloo ngeen jóg ci lijjanti ko yéen yi nekk ci leen dëkk yi yeneen région yi bu leen neexee ñëw leen Dakar bu leen neexee bu leen ñëw waaye ni leen wóor ne gouverneur bu leen ko bàyyi mu nelaw préfet bu leen ko bàyyi mu nelaw bu leen ko bàyyi mu nelaw sous préfet yi aussi ñu ne ci àll te mënuñu jot si Ndakaaro sous préfecture wax xam nañ ko nañ fa jubal direct lijjanti leen lépp loo xam ne tàkk na lépp lu fi tàkk dis koy defaraat wax naa leen ko ba tàyyi wax naa leen ko ba tàyyi gis ngeen manifestation bi fi biir palais biir palais biir pale bi la ah ñëpp dugg ci biir waa waa kii waa Bangladesh Bangladesh Bangladesh dañoo ñëpp dugg parce que dañ il faut jox nit ñi chance ñu dugg ci piscine bi sangu moo tax xale yëpp ñu ngi tàbbi ci biir di sangu aka a pàccax ndiko yéen xale Sénégal aussi kenn ku ci nekk joxoon sa doom opportunité mu dugg palais de la république tëdd ci lalu Marème Faye sàll ba dugg ci duus bi gaanuwaay tëb ci piscine bi sangu waaw loolu lépp day toj gàllaaj na xale yi jóg. te bu leen bu xola buleen leen yox yox ci dara am nañ alal joo xam ne lu fi yàqu daañu ko defar ma lu fi yàqu daañu ko defar wax naa leen ko keroog ne gaz bi ñu soxla wuñ ko de gaz bi européens yi ñoo ko soxla européens yi ñoo am problème ak Russie Russie arrêté quarante huit pour cent gaz bi ñu jox mu téye ko européens yi fi ne togg mënatuñ ko seen industrie bi yëpp a perte industrie automobile dafa taxaw dara fonctionné tul dara dara fonctionné tul léegi ana luñ bëgg jël gazu Sénégal bi mu remplacer gazu Soviet Union bi loolu tax loolu tax ñu dal ci ko Ousmane songo Sonko noo ko waaye am naa yaakaar ne askan wi daañu def ne Pakistan daañu def ne Bangladesh daañu def ne Mali te daañu jóg am fulla xam ne sous région bi dañ ko war a boole njëndum jaam jeex na njëndum jaam jeex na gis nga Mali ñëpp jóg waaw imam di ko taxaw def discours boo xam ne dafa rassembler waaw dafa rassembler armée bi ñëpp ak la citoyenneté ñëpp jóg ñu créé benn république boo xam ne kuy malien kontaan nga tali actuellement Mali Mali seen or bàyyi lañ ko daan yóbbu pour mool ko wala yóbbu ko pour mool ko wala or ñu jël ko yóbbu ko Angleterre England mool ko tey loolu lépp amatul Maliens yi seen or Russie ñoo leen taxaw seen dëkk lañ koy mool def ko ay briques seen dëkk lañ koy valoriser seen dëkk lañ koy jaay seen dëkk lañ koy lépp France mii France France mooy quatrième puissance mondiale ci or maanaam li France yor ci or mooy ñeenteelu réew yi ko ëpp ci àdduna te France tey bu nga yor pic ak pelle di gas ci digg Paris mën ngeen a gas quatre cent kilomètres ci suuf du ngeen for ab përëm përëm du ngeen ko for kooku ana nu mën a doone quatrième puissance mondiale ci or lépp bagage africain yi lépp bagage africain yi Ousmane Sonko dafa jóg pour arrêter loolu Ousmane dafa jóg pour ñu doon ay nit parce que duñu ay nit te dëgg-dëgg nag transformation foog nu def ko ndax ndax six siècles d'esclavage trois ans de néocolonialisme trois ans de colonisation des années yii yëpp impérialisme ak indépendance yu bon yi nga xam ne ke amul benn sénégalais benn sénégalais rek bu ma sa teg ci la décoration de l'indépendance du Sénégal je défie l'université je défie tous les ministres. J'ai défilé députés, j'ai défié l'Assemblée nationale. Je défie tous les intellectuels du Sénégal. amul kenn ci ñoom kenn ci ñoom commencé teg bët teg bët la décoration de l'indépendance du Sénégal mus leen am indépendance dañuy fen dogal bi mu fi dikkee bi mu dikkee Senghor nekku fi Mamadou Dia nekku fi Lamine Gueye nekku fi tout le gouvernement du Sénégal dañoo nekk en vacances nekk nekk Genève kenn kenn na fi desoon muy le ministre leen l'intérieur ñu naan ko wal joojo dogal bi ñu ko laajee gi mu ne soxlawuma gouvernement bi ndax ñooñu samay jaam lañ maa leen fi teg ñooñu man lañuy ñuy liggéeyal kon amul lu ma leen di laaj ñi may laaj kay mooy ñi ma ko séqaloon en 1896 te may ma Sénégal te may ma Sénégal ñooñu laa bëgg a waxal ndax sëriñ si kat ak ceddo yi fi nekkoon ñoo ne woon tubaab bi Sénégal ngoog fabal jëlal lépp may nañ la ko waaye dañoo bëgg nag nga may nu lenn ba penku nga bàyyi noog penku bi ndax kat dañuy julli ay jullit lañ buñ fa jógee ñu di lañ ñaan nga bàyyi noog suuf si ndax nu mën a bay lu luñ dundee waaye lu fi ne ci réew nga soxla ko fabal sëriñ si ko may moo bu dëggal dikkee am la courage dajale waat sëriñ si ci kaw tribune bi keroog bi dëggal ñëwee sëriñ si na doon xeex maa koy ñaanal ku ne ne maa koy ñaan ñu xëccoo di ko ñaanal yow ab yéeféer ko xam ne dalay dalay ah nga taxaw di ko ñaanal dafa ruslu ah am na ñu dem ba jël loxoy loxoy loxoy tubaab yi loxoy yéeféer yi di ci xaatim loolu lépp gis ngeen ko nga ma ne yi bàyyi leen leen ñu jóg waaw bàyyi leen xale yi jóg te xale yi daan jóg xale yi seen avenir moo nekk jàppandi bu ngeen jógee dama bu leen leen lu France moom bu leen ko bay lu ngeen yaakaar ne France ko moom lu koy nuru sax taal leen waaw yéen ñi nekk Tamba yéen ñi nekk Euh, Sénégal oriental ak yéen ñi nekk euh, booru Kédougou saaba doolaa dem leen ngeen arrêté liggéey bi dem leen ngeen arrêté machine yi yéen ñi féete Tivaouane Mboro lam ak Thiès dem leen dem leen batal ngeen arrêté usine bi bu leen bàyyi indo yi di jël suuf si indo yi moomuñu ko yéen a ko moom bu leen xoola dàq leen indo yi tëj usine bi voilà yéen yi nga xam ne yi nekk jogo lépp lu fete ci zircon dàq leen tubaab yi tëj usine bi dàq leen bi tëj usine bi yéen xale nekk port autonome mbànd mu fay nduru mbàndum essence bu leen ko ba mu bu leen ko épargner waaw bu leen ko épargner te bateau boo xam ne dugg si la Sénégal nekk fa bu leen ko ba mu dem bu leen ko ba mu dem il faut tout vider il faut tout vider le palais de la république foofu ngeen soxla dem leen fa Macky Daw ma nga bi dem leen ngeen jiitu ko fa tëdd ci lalu Marème fay bi alkaati yi xoola alkaati yi ne gedd ñoom nervi yi sax dana wuñ ko ànd ak yéen Macron ak Macky Sall problème yi Ousmane Sonko am ñoom ñaara te la communauté européenne ci la ñu bokk te lii ma leen di wax mooy li nga xam ne moo am moo am Europe du nangoo torox de duñ ko nangu duñ ko nangu te Sénégal ne fi li Russes yoxatu leen Russes ngi dafa téye gazam ne du ngeen ko fi amee du ngeen ko mos ñu tàmbalee torox ca pandémie bi ba nëgë ni ba nëgë ni mënuñu liggéey oto bu baax dañuy réparer que fëgg seen usines yi nekkoon Asie yëpp dafa tëj pièce de rechange mënuñu koo am ñi gut ay banque yu ko financé ah coow loolu mi dugg toujours ci bourse yi mais amul kenn ku ci des sa ñaari dërëm parce que dañoo nekk ci problème boo xam ne munuñu koo dindi ma di leen rappeler ne le nouvel ordre mondial moo bëgg a nangu Sénégal yéen ñëpp di ngeen Icon City Icon City bu noppee bu noppee booy woon luy jumaa ci Sénégal ñu tëj ko nañ tëj jumaa yi dellu doon ay yéeféer nag te loolu mu leen berte de Espagne Espagne ay jullit lañ woon ñoom ñëpp tey année bii tey boo demee ñëpp yéeféer lañ ab jullit fanaanu fa kon bu tubaab bu naka tubaab yi def na ko espagnol yi def ko Sénégal comme bonjour te lii ma neex mooy li am sénégalais yi ak xale yi jóg leen bu leen bàyyi réew mi diig lànk leen lànk leen dajji leen kaso yi génn nit ñi su ngeen ko defut Macky Sall ci biir la leen jëmee Macky wàññi na ci junni junni nit la ci wàññi junni yooyu junni patriote la ca bëgg a remplacer mu la ko bëgg a remplacer moo la ko bëgg dem leen jam ñaa jam ñaajo bu leen fa bàyyi dara waxoon naa leen ko nekk biir Pikine di taal Pikine bu leen taal marché yi ngir yàlla marché yi waa kër Ousmane Sonko rek a ci ne marché yi ay marsan ambulant fa ne marché yi ay borom yi bagage yoo xam ne dañuy fortaal ndëli seen ndey fi ne su ngeen mënee tey taal tey taal dëgg dem ni ci usine yi tubaab yi su ngeen mënee tey taal te bëgg a yàq dem leen batal ngeen tëj usine bi ah fi total nekk xam ngeen ko fi total xam ngeen ko dama ne jóg leen te def fi nit bu leen ko nangu géejawaay pëne sax bu leen ko fa taalati bu ngeen mënee dugg leen biir Ndakaaru yéen ñi nekk ci dëkk yi police lu ngeen xaar ci police bi lu ngeen xaar ci gendarmerie lu ngeen def yéen li ngeen soxla sax bëriwul yéen par exemple fu mel ne gendre gendarmerie bu tàkkee police tàkk ah ànd fu ngeen soxla kër préfet jeex na ñett ci xale yëpp man ngeen lijjanti man ngeen koo lijjanti ba pare nag jàll mbooro jàll mbooro lu fay usine ngeen arrêté ko kan li bokk yeewu parce que Poutine yee nañu de Poutine li mu wax leer na ci kanamu africain yi neen tubaab yi jóg nañ pour réinstaller beneen système colonialisme boo xam ne bu dikkee ñëppay torox nee na moo tax mu lànk te gaz bi nga xam ne matériel bi nano bombar ji ëllëg ci la ne mais Poutine rek mënta xeex de il faut ñun ñëpp ñu jàpp ci waaw ah, te may bët Ousmane Sonko Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko dama ne Macky Sall ci gën a tuuti Ousmane Sonko affaire Macky ci gën a tuuti loolu ngeen xamul du affaire APR Ousmane Sonko maanaam wax wax naa ne quatre-vingt-dix millions de fois Ousmane Sonko gaz bi ngeen yor moom la européen solt daanu ko jël waaw sëriñ sépp ku ci wax faatu dama ne marabu yi ñooy trahir de ku ci wax faatu waaw ay Khalifa Sall ñi ay traître lañ yoo xam ne xam nañ li xew waaye ku ci ñemewuñu ubbi seen gémmiñ ce sont des vendus ñii ñoo jaay réew mi dem seen yoon bu ngeen jógul bu ngeen jógut jógut français yi ñii lañ fi teg do baa dooli lañ fi teg des gendarmes corrompus bisexuels yoo xam ne du nit dara ñu di def ay ay ay ay di di di ay ay ay gendarme ah gendarme bi bu jigéen bii ah am na ku ma ne am na doom ak mbeng mbeng de koo ëmbal mu am doom tey kooku moo ji su ma am sonko loolu yow nga nekk nga nekk agent buy rond non ma sa oto bi man na fa kër Ousmane Sonko dama jóg leen xale yi bu leen bàyyi dara na lépp tàkk gis nga Cologne dafa tàkkoon après la dernière guerre mondiale dara néew foon Mannheim dara nekk foon Düsseldorf dara nekk foon Dortmund dara nekk foon Gelsenkirchen dara nekk Mönchengladbach ba ba ci München le sud dara nekk foon lépp a tàkkoon mais Allemagne ci mbayum pombiteer ci leen développé waat dëkk boobu ba dëkk boobu mag eh, normal tey tey bu Sénégal tàkkoon ba jeexit ban bi ban bi képp ban bi képp turbu bi la ñuy jël defaraat ci réew mi suñ alal ji ñu denc ko waaye bu leen épargner benn intérêt français lu français yi moom xale yi ngeen xam ko xusi leen ko almet tekki waaw assemblée nationale du nite dara bu leen ko épargner ne lépp tàkk waaw kër makki Sall dama ne fexe na ngeen dugg na ngeen Macky dafa daw ci daw la ne ci yoonu daw la ne waaw ka leen bokk jóg te xam ne bu leen Sénégal rëccee torox ngeen waaw àll bi neexut toog leen seen dëkk buleen leen Sénégal rëccee nag yi la jeunesse bu leen jëlee ci gaal yi dem leen Mali dem leen Guinée dem leen Burkina Faso dem leen Niger wut fa ay carte dëkk fa doon ay nigérien ak i guinéen ak i malien wala ay burkinabé bu leen Macky Sall rëccee euh, dama ne bu leen Macky Sall rëccee rek torox ngeen torox ngeen Hiroshima yéen koy fàttaliku bombe bi nga xam américain yi nañ ko japonais yi xool leen Japon tey xool leen Japon te liñ am Japon amul un quart ba liñ am Japon amul un quart ba Japon seen lépp ci xam-xam la science ci luñ ko wér te la science est une culture universelle ku jàng xam te am nañ loo xam ne Japon yi ne amuñu ko Allemagne yi amuñu ko waxoon naa leen ne leen liñ yor liñ yor ci gaz képp Bundesbank Bundesbank mënu koo jënd dama li yor ci gaz képp Bundesbank mënu koo jënd waaw waxuma laak waa Japon teg ca kenn jóg aar suñ bopp fexe nu na Ousmane Sonko génn ci kaso bii parti Pastef bi day dekki Macky Sall moomu ko ba ko rey waaw te xam naa yaakaar te wóolu naa leen xam naa ne xam naa ne quarante dans ces quarante huit heures Ousmane dana génn te Macky Sall ngi ko teg ci loxo li leen di waxat maa ngi ni koy deel rapport tant que bàyyiwu leen daajuwu kaso yi du ngeen am jàmm man dama ci am expérience j'étais en Guinée bi ñuy dajji Camp Boiro bi ñuy dajji Camp Boiro man ak benn mbàkke mbàkke ñoo jëkk Camp Boiro nous avons rassemblé les pour sauver seeni bakkan j'ai appelé Diarar Traoré mu ne ma toogal foofu bul dem par toog na vingt quatre heures vingt quatre heures ah te ambassade du Sénégal dikkul c'était pour sauver les Sénégalais te temps boobu maa ngi ci digg révolution bi di ànd ak di supporter Sékou kon suma ne leen kaso yi am na ci njariñ gëm leen ma dajji leen kaso bi génne nit ñi waaw kër député yi kër député yi kër ministre yi bu leen leen bàyyi ñu nelaw comme intérêt France ngeen koy xoole ku ngeen xam ne ab député la ca sàcc yu njëkk sàcc Ablaye du njëkk sax bu leen di may fu yàq seen nàkk ab xeex day day sotti ab xeex day sotti waaye tàmbali bàyyi bu subaa nga ba Macky Sall dafa ne ak sécurité Sénégal dañ ne ñii dañuy xeex rek ñaari fan daal di bàyyi ne bàyyi ñu taal ñaari fan ñett noppalu ñu defaraat dëkk bi toog loolu lañ wax de dana ñun ay ngaaka lañ mënuñoo xeex nu dul ay malien xamuñ sax nu ñuy xeexa pour ñoom neen dañuy tàmbali rek waaye ñaari fan ñett suñu mbokk téyenu wala sëriñ si wax ñu daal di bàyyi benn benn sëriñ génn wax te naa leen xamane ne sëriñ bu njëkk a wax wax wax laa la wax de franc tubaab yi posé la ñoom ñëpp xam nañ ko ñëpp am alerte moo tax ñëpp ne pat ku ci ubbi sa gémmiñ tubaab yi faat la waaw te lii ma leex mooy li am maa ngi jégalu bu baax na tey ñaan jàmm Sénégal nag foog ñu nangu ko Sénégal noo ko moom le retour de la république au peuple sénégalais il faut il faut il faut ñu jóg taxaw en tant que de digne fils comme maliens yi comme maliens comme armée bi duñ ay góor yéen peuple bi jóg leen jóg leen sukkandiku ci article trente cinq de la déclaration des droits de l'homme man da Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience yal na yàlla suturaal yal na yàlla suturaal te may ndam ci xare bi yal na yàlla suturaal te indi ndam ci lii nga xam ne moom lañ bëgg moom suñu bopp jël nanguwaat l'islam defaraat ko nanguwaat l'islam tegaat ko ci yoon puis an lof jàngeen jëf jaa ngeen jëf